lu ñeel mbirum juróom-benni agent safiinatul amaan yi nga xam ne jàppoon nañ leen àtte nañ leen démb ba condamné leen xabaar bi démb la grande instance ba nekk ci Jurbel nangul na maanaam dëggal na ni juróom-benni agent safiinatul amaan yi li leen tuumaal ñoom ñoo ko def ñoom nag liñ ñu leen doon seen liggéey mooy ñuy góorgóorlu di fee ci bàyyi xel ci lépp loo xam ne digle sëriñ bi la ci dëkk bi ñu wàccoog moom waaye li muy tere itam ñu wattandiku ko ci loolu yi nag ci lañ amoon ak jafe-jafe ak lenn ci ay taalibe yi nekk ci dëkk bi ku ñuy wax Cheikh Ñang ñu koy wax ñu naan ko ay bay Fall moom tëj nañ ko ñaari weer yoo xam ne daf koy tëdd ci kaso bi ndax kat moom mii nee ñu moom moo buux ki nga xam ne moom la ñuy wax ne mooy Serigne Sidi moom sëriñ Serigne Cheikhouna di sëti Serigne Abdou ba mu jaara ca am jafe-jafe ci wàllu tànk ba ne ñu dafa damm moom mi loolu moo waral ñu tëj ko ñaari weer am na ku ñuy wax Talla Thiaw ak ku ñuy wax maam Cheikh Anta Ndiaye ak ku ñuy wax Cheikh Abdou Seck ku ñuy wax Modou Fall ak Modou Tall ñoom ñooy kenn ku ci nekk nag benn weeru kaso lañ leen tëj am na nag koo xam ne mooy leen juróom-ñaareel mooy septième personne bi di wéy ko turu Fallou Fall moom moom nag day xale ba tax na moom tey ji ajuma ci leen ko war a atte à huis maanaam dañ koy atte te kenn du ko fekke ñoom ñii nag li ñu doon toppee rek mooy li ñuy wax coup et blessure volontaire maanaam daal fitnaal ah, ah, teg nit coona ba sax mu xañ ko toll ci juróom benn fukki fan yoo xam ne dana ko toog du mën a liggéey kon daal assaini samitu amaani kon kontaan na nañ leen ki ñu wax ne moo buux sëriñ si di mun seexu naa tëj nañ ko ñaari weeri kaso yeneen ah, juróom juróomi nit yi tëj nañ leen benn atu benn weeru kaso kenn ki ñoom nag di juróom-ñaareel bi tey jii lañ ko war a attee muy wéy ki turu Fallou Fall ndax moom nag day gone maanaam mineur la moo tax ñu def ko defal ko audience spéciale